nee na ñëpp teew nu nu nu yeesal suñu jaayante sëriñ bi di yeesal suñu yéene di yeesal di gën a wéyal suñu pastéef di gën a jublu sëriñ bi teel rek la parce que dolli ko moo di bu ñu yeesalee suñu jaayante ñu rot li ci kanam dañuy sëriñ bi bii dañuy bii am ni cee bokk waaye li bi rëy na yàgg na et eh, il faut que mu yóbbu ko fa ko jëmee waaye nag bu tee ñu ñaan nanu ñaan dañuy sëriñ bi nii yàlla kattan nañu ñun ñii fi teew nii kattan nañu ak ñeneen ñi ñu wutal la te moom kattan nañu jotaay bi mu ngi bis bis bis bis daje ba lépp. kon kon ci barke sëriñ ñi ñëw liggéey bii ñu nekk ci teewe di ko teewe nii ak ñi ñëw ëllëg ñi ñëw يعلم إعلام كلمة الله العليا لكم مو مو مو مو مو مو فيني لوري لو سبعين مو سندا تبرع فرنك تملك تبرع فرنك دي عمل نيجي تيو دليل كاتن بنقول تعالوا Yeah.